moom soo seen people ñu may bu neexee na ko ñaaree SMS mu tàggatoo. jërëjëf gars yi ñu ngi leen bu baax di leen siyaar bu ñu sànqees bu baax a baax a baax di leen siyaar wax na ñu ngi nuyu waa Géejawaay yëpp wax benn question la muy sànqees day naanaanu bërekat Eumeu Sène di naanaanu bërekat ñoom ñaar seen combat gis nañ polémique bi na gars yi naan lu tax lu ñu waxante ci signature mais ñun jàpp nañ ne man Fallou en personne jàpp naa ne combat bu dàq ci saison bi moom lay doon muy Sa Thiès Eumeu Sène mais benn amoon muy Sa sa combat yi gën a am bële yu bëri boo lu ci mel nga xam am pour arrêt booy gis ne day yàq sa lamb te Eumeu Sène gis nañ ne ba muy bëreeg la dëgër am na arrêt bu mu ko a ba muy bëreeg Balla Gaye sa mag gis nga arrêt bi jël macha allah. scaale boobu Sa Thiès mi bu ko jëlee ci Eumeu Sène mënul yàq lamb. waaw kon corona bi démb santaan. corona bi démb daal. ñoom ñu ngi ak moom bokkul xeex. boo man kaa woowu ñaari combat yi nga xam yëpp kaa woowu. c'est-à-dire que problème taxaw. damaa demoon pour affronter te combat boobu nee na jëkk rek ñoo xam ne ci biir mais baax na sama ñu yàlla xamul ñu ko liggéey sama loxo rek dafa tombé rek mooy jub mais xamul bi sa ndaw bi sa defet bi sa defet bi sa ndaw te Sa Thiès bërikat la te Eumeu dafa aay ci attaquant te nit dañu gëmloo ni Sa Thiès bu arbitre sa diggante bu dox ci kaw Eumeu Sène Eumeu Sène ak bërikat ak nga wax génnee parce que buñ la am ci moom xam nga duñu benn attaquant yi duñu ak ñu mu muy attaqué Eumeu Sène ak ñi a attaqué ba tey ñu benn yow laa laaj yow soo yow Sa Thiès sa bëri xam nga dama ne la yow bërikat nga te Eumeu Sène dafa mën a bëri bërikat pour benn benn kii benn benn sax aay ci moom mais bërikat la mën a bëri kii soo mën a bëri. waaw am na seen bëri bu duggee naa la ko boo ko gisal mu def ko bi ma ko def yëpp dañ ko andi da ngay dugg di génn bu dugg génn baaxoo kenn poids bi bu ko fekkee surtout moment bi mu toll. xale la te maa ngi wax moom maa ngi waaj. xale bu tuuti la day nàmp ba léegi xale la waaw di sant yàlla baax a baax a baax. waaw di sant 52 pays ligue ah, bi fi nekk yëpp 53 53 équipes yi fi